bani israila yal na yàlla xalak bani israila yaa rabbi yal na yàlla xalak bani israila yal na yàlla xalak bani israila yaa rabbi ba lislaam dooree ba ci bésab tey bii ba lislaam dooree ba ci bésab tey bii yàq wu mos a jëm ci lislaam rek ci yahud la jële yàq wu mos a jëm ci diine lislaam ci yahud la baxe ko ba léegi ba léegi ñoo fi nekk di jéem a yàq lislaam ñoo fi nekk di jéem a yàq diine lislaam alquran wax nañu ne alquran wax nañu ne gën a tat noon gëm yàlla ci ñi yàlla moo di yahut mooy yahut ñoo rey yaxya ñoo rey yaxya ñoo doon jéem a rey isa ñoo doon jéem a rey isa wax nañ sax wax nañ sax ñoom ne rey nañ ko yahut posone yonente bi ba mu génn àddina ñoo posone yonente bi ba mu génn àddina yahud yahud ñoo fay ki rey sidina Omar ibnu Xattaab ñoo fay ki rey sidina Omar ibnu Xattaab nga xam ne bu dundoonati fukki at rek lislaam daj àddina nga xam ne bu dundoonati fukki at rek lislaam daj àddina kat yahud yahud ñoo xebal ki sos xawaarij ñoo xebal ki sos xawaarij ñoo xebal ki sos xawaarij ba yàq xare Sidina Ali ibn Abi Talib ba yàq xare Sidina Ali ibn Abi Talib ba yahud yahud ñoo hebal ki sos sihan ñoo hebal ki sos sihan sihan ñi nga xam ne sihan ñi nga xam ne dañoo def ali yu muy yàlla dañoo def ali yu muy yàlla ak i doomam ak doomam noonu Babacar ak Omar noonu Babacar ak Omar pas-pas boobu ci diine lislaam yahut ko sos pas-pas boobu ci diine lislaam yahut ko sos ba fi léegi ba léegi. lépp lu jullit ñi tawat. lépp lu jullit ñi tawat. yow da ko sos. yow da ko sos. riba ñoo ko indi ci àddina. riba ñoo ko indi ci àddina. banque yi def intérêt yow da ko sos ci àddina. banque yi def intérêt yow da ko sos ci àddina. communisme. communisme. li gën a nekk noonu lislaam. li gën a nekk noonu lislaam. yahud yee ko sos ci àddina. yahud yi ñoo ko sos ci àddina. yahud yi ñoo def julli li leen naqari ci li ngeen déggoon ci wetu weeru koor yi yahud yi ñoo def julli ñi li leen naqari ci li ngeen déggoon ci jamonoy koor gi yetti jàkka yi nga xam ne moo gën a màgg ci lislaam yetti jàkka yi nga xam ne ñoo gën a màgg ci lislaam benn ba moom benn ba moom jàpp nañ ko jàpp nañ ko kenn dootu fa nodd kenn dootu fa nodd kenn dootu fa julli kenn dootu fa julli te te seen bëgg-bëgg amut foofu. seen bëgg-bëgg ba kat amut foofa. jàkka yonent ba dañuy xase. jàkka yonent bi la ñuy xase. buñ sañoon jot Medina. buñ sañoon jot Medina. ba julli ñi dootuñu am fuñ jaar siyaara ji yonent bi. ba julli ñi dootuñu am fuñ jaar siyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa ñooñu ñooy neen ak noon kuy jullit. ñooñu ñooy noon ak képp kuy jullit. ku leen xamut war nga leen a xam. ku leen xamut war nga leen a xam. alquran xamal nañu ko. alquran moom xamal nañu ko. seen taarix ci àddina it xamal nañu leen. seen taarix ci àddina it xamal nañu ko. kon nag. kon. bu leen tubaab yi yar. bu leen tubaab yi yar. rafetal ñooñu fi yéen. rafetal ñooñu fi yéen. ba ngeen defee ne ay nit lañu. ba ngeen defee ne ay nit lañu. xisay bani Israaïla bëri na ci alquran la. xisay bani Israaïla lu bëri ci alquran la. yàlla jubluwu ci lu may xamal ñu ne ñoo yàq wi gën a màgg ci àddina. yàlla jubluwu ca dara lu may xamal ñu ne. mooy yàq wi gën a màgg ci àddina. yàlla xalak yal na leen yàlla xalak yaa rabbi te xalak képp ku leen di dimbale te xalak képp ku leen di dimbale yal na leen booleeg Amérique yal na leen yàlla booleeg Amérique yal na leen yàlla booleeg Amérique mi leen di dimbale mi leen di dimbale def leen ci gën ja suufee way suufee def leen nekk ca gën daa suufee suufee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh